maa ngi am mbégte trop tey bi ñu defee tournée bi euh, bi nga xam ne moom la gouverneur di def euh, chaque année pour dem saytu xool euh, naka la examen baccalauréat bi naka lañ ko dooree dem nañ nag ci ñeenti centre ànd ci ak adjoint au développement bu gouverneur ànd ci ak préfet Thiès département ak inspecteur éducation de formation Thiès département ak bu Thiès ville Euh, les euh, associations de parents d'élèves, notamment l'UNAPES, euh, ak aussi euh, les organisations syndicales représentées par le QSEMS, e ak euh, le conseil le président du conseil départemental ak euh, organe de presse yi ñu dem nag ci ñeenti centre ci benn bi am ci xale yi nga xam ne seen gis-gis dafa xaw a sooxee tuuti te ñuy jàngee INEFJA fépp fi ñu dem nag wax dëgg yàlla ñu ci sant suñu borom di gis ne euh, wax dëgg yàlla examen bi euh, door na ci jàmm euh, ndax fu ñu fépp fu ñu dem rek fekk nañ fa président de jury chef de centre yi surveillant yi doy examen bi dox ci yoon jafe-jafe wax dëgg yàlla fu ñu jaar yëpp waxu amul benn jafe-jafe boo xam ne rek wax nañ ñu ko waaye tamit bi ñu wootee ci juróom-benn fukk centre ak juróom yi nga xam ne moom la ñu am fii ci académie bi Euh, foofu yëpp wax nañu ne pour le moment daal amul benn jafe-jafe examen mi ngi dox ci yoon ñu ñaan suñu borom rek ni ñu ko dooree nii ñu euh, dem ba ca ca ga te buñ fa àggee tamit euh, li nga xam ne moom la ñëpp bëgg mooy xale yi admis admis ci nombre bu baree bari wax dëgg yàlla ñu koy ñaan suñu borom yaakaar naan mën na ko te incha allah dina ko def am nañu vingt six mille cinq cent quarante maanaam ñaar fukki ñaar fukki junni ak juróom-benn ak euh, téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñett ci candidat moom la ñu am ren. boo xoolee gis na yokk euh, na daanaka junni am na junni boo xam ne junni ak juróom-ñett yoo xam ne tegee na ci euh, donc loolu xam nga ne xaw na bari waaye wax dëgg yàlla def nañ matukaay yëpp. ànd ci ak gouverneur ànd ci ak préfet yi ci wàllu sécurisation centre yi wàllu sécurisation épreuve yi wàllu surveillance. Euh, vraiment ñu mobiliser euh, presque juróom-benn euh, ñetti junni enseignants ak juróom fukk ak benn xam nga loolu bari na moom lañ mobiliser pour ñu toppatoo baccalauréat bi loolu moo waral tey wax dëgg yàlla amuñ ci benn jafe-jafe. monsieur yaa peut-être sama laaj bu mujj li ñu doon wax yenn parents d'élèves yu amoon njàqare ne seen ay doom dañu bindu si benn école privée mais dañ leen déclarer candidature individuelle. Euh, lan ngay dalal seen xel. waaw loolu euh, ñoom ñëw nañ sax suma bureau ba ñu waxtaan li euh, liñ ci war a def yëpp defoon nañ ko tamit parce que ñun dañuy wax école privée yi bu ñu jël candidat te fekk ne seen arrêté d'ouverture génn na. li ci am nag souvent dañuy dañuy wax parents yi nañ ñëw inscrire am yaakaar ne xëy na arrêté bi dina génn balaa at mi jeex ñoom loolu école boobu loolu lañ def. Euh, malheureusement arrêté bi génnul parce que euh, liggéey bi nga xam ne moom la ci inspection d'académie war a def teñ def ko ci euh, dafa ci am tardement boo xam ne ci ñoom la dafa am kayit yoo xam ne ak laaj yoo xam ne dañ ci waroon tontu mu xawoon am tuuti tardement loolu moo waral arrêté bi génnul ba tax candidat yooyu ñu déclaré leen ay candidat libre individuel dëgg la métti na pour parents d'élèves yaakaar ne école am xëy na ay doomam ay candidat officiel lañ ñu def leen ne day tax xale yi du ñu def seen examen euh, dinañ def seen examen ñu ñaan yàlla rek ñu admis ak xam nga école privée dafa nekk lu xaw a euh, sensible parce que dafa bari fii Thiès waaye ñu ngi ciy def liggéey bi ñu war a def yëpp ñu ngi ko ciy def fi ñu toll pour contrôler école privée yi en amont waaye tamit contrôler leen euh, dem di xool seen bërëb ba ñuy nekk la ñuy jàngale ak lépp daal ñu ngi koy saytu ñu ngi koy teg ci yoon am naa yaakaar ne bu ñu paree liggéey bi nga xam ne moom la ñu door bañ fi nekkee ba léegi am nañ yaakaar ne xëy na euh, école privée yi dinañ gën a euh, jaar yoon parce que boo xoolee ñoom tamit euh, kii parce que école privée la ak public public bi rek mënul dem bàyyi privé ñaari yi ñoo ñooy àndandoo parce que bu résultat bu ñu nee résultat yi baax na parce que dafa baax public baax privé am na ci école yu privé yu yu yu mucc ayib yu jaar yoon waaye am na ci ñoo xam ne aussi euh, ci wàllu kayit dafa des moo tax liggéey boobu ñu ngi koy def pour xool naka la ñuy fexee ba nga xam ne euh, école privée yëpp nañ tege ci yoon loolu ma wax ci rek au niveau de l' inspection d' académie am na benn organe boo xam ne créé nañ ko mooy mooy le CAPEP le cadre des acteurs et partenaires euh, de l'enseignement privé boo xam ne dañuy toog di saytu di waxtaane affaire école privée di leen defal ay formation fan yee passé euh, Balde le l'inspecteur régional de du travail ñëw na inspection d'académie rencontrer CAPEB bi waxtaan ak ñoom ci wàllu naka la ñuy euh, documents yi nga xam ne moom la ñuy gérer école privée ak euh, ci wàllu euh, contrat de travail yi nga xam ne moo war a dox diggante déclarant responsable yi ak enseignants yi nga xam ne ñooy nekk ci école privée ba boo xoolee bu ci ci primaire ci préscolaire sax laay wax ba ci secondaire boo xayma école privée moo ëpp école école école publique yi fii ci fii ci Thiès mu nekk loo xam ne même boo demee Dakar boo xoolee école privée yi tamit ñoo ëpp école publique yi loolu moo waral euh, liggéey bi nga xam ne moom la ñuy def ci école privée ma wax ko léegi il faut que ñuy gën a dem ci école privée yi pour mën a fexe ba nga xam ne euh, réglementation bi ñu respecté ko parce que xale yi nga xam ne ñoo fay jàngee euh, ay ay doomu Sénégal lañ fii ñu nekk nii tey école d'excellence école privée la xam nga boo fi duggee xool condition de travail yi fi xale yi nekkee da ngay gis ne fii sa xel day daal pour nga indi fi sa doom loolu nag la ñu bëgg a fexe ba nga xam ne école privée bu nekk booy ubbi rek nga teg ko ci yoon bu fekkente ne euh, am na lu manqué tamit ñu fexe ba ñëw fa wax la li fa manqué nga mën koo def. mais jotagu leen ko recensé. si si ñu ngi koy ñu ngi koy recensé parce que euh, parce que xam nga euh, wax naa la am na école privée yoo xam ne ñu ngi nekk en règle. avec la réglementation amul benn problème waaye am na ci yoo xam ne dafa dafa dañu xaaw ci wàllu réglementation dafa des tuuti liggéey boobu nag ñu ngi ci euh, daanaka sax def nañ ko ba pare euh, mais li ci gën a am solo mooy fexe ba nga xam ne école privée yi nga xam ne nekkuñu en régle mën a nekk mën a nekk en règle tey bu fekkente ne yow dangay ubbi école privée da ngay dafa am dossier boo xam ne ay pièces la yoo xam ne moom ngay euh, dajale indi ko inspection d'académie pour ne yow da nga bëgg ubbi école privée dana am feneen fu muy jaar parce que dana am liggéey boo xam ne tribunal dana ko ci def am na liggéey boo xam ne police dana ko ci def waaye bu fekkente ni kay yëpp dajaloo na inspecteur d'académie amul droit ba a joxe récépissé euh, e-, ki déclarant responsable récépissé bi nag da koy jox euh, possibilité mu tàmbaleegum ba enquête réglementaire am bu déposé dossier boobu dañ koy jox ñun récépissé de de dépôt bu ko defee mu tàmbale euh, ministère bu fekkee dossier bi àgg na ministère division enseignement privé daf ñuy euh, bind wax inspecteur d'académie na commandité benn enquête enquête buy wone ni école bi euh, am na lépp pour ñu jox ko arrêté d'autorisation d'ouverture wala amu ko ñu xool naka la ñuy def ak moom pour mu tëj wala leneen dégg xam nga kon ca ndorteel ga yaa du dem pour xool la fa nekk ci dossier bi rek ci lay su ko mën a sukkandiku pour euh, pour wax leen mën ngeen a ko tàmbali. est-ce que yaa ngi may yaa may comprendre bu baax léegi nag bu ñu defee enquêtes yi ba gis ne teguwul ci yoon wala déet foofa nag la ñuy décider ndax dañu dañ koy permettre mu ubbi wala déet dégg nga wax ji loolu moo am ci euh, euh, nu mu tati école bi nga bi nga wax léegi école bi nga wax léegi dañu déposer seen dossier. Euh, amoon na sax gaa ci début ba lu ca manqué woon ñu wax leen ñu andiwaat ko ba ñu ko andee ñu jox leen récépissé de dépôt ñu tàmbali waaye enquêtes yi bi ñu ko tàmbalee gis nañ ni am na yu ay rëq-rëq yoo xam ne war nañ ko corriger ñu bindaat leen ne leen lii ak lii ak lii war ngeen ko corriger loolu moo indi tardement ci arrêté d'ouverture bi xam nga mën nañ jox arrêté d'ouverture te arrêté bi c'est le ministre qui signe ça. foog IA ak euh, foog IF def liggéeyam. yaa def liggéeyam dossier bi dem ministère bu dossier bi mu mucc ayib nag ñu doog a defar arrêté loolu nag moom la école boobu amagul loolu nag mooy indi diggante jafe-jafe parents yi ak école boobu. mais kon li ñuy wax ne anarchie dans le privé moo fi am loolu. non non non xam nga xam nga aussi xam nga mbir boo koy wax day fekk nga nekk technicien ci lu nga xam ne loolu moom nga jàng ñun jàngale rek lañ jàng jànguñ leneen xamuñ leneen. Euh, moo tax euh, man duma wax ci leneen wala bu ma ciy waxit danaa xam nu ma ciy waxee euh, fii ci cees anarchie ba ñuy wax noonu wax dëgg yàlla demeewul noonu nañ koy nañ ko ni fañ ko yóbbu demeewul foofu mais wax dëgg yàlla tamit am na ci école yoo xam ne ñu ngi koy saytu am nay jafe-jafe waaye ñu ngi fexe ba nga xam ne école yooyu danañ tege si yoon parce que comme ni ma la ko waxee léegi ñun dañ fi nekk pour privé ak public te xooluñu ndax privé la wala public la xam nga lu ñu xool xale ya fa nekk ay doomu Sénégal lañ li li condition yi nga xam ne moom la état wax programme yi nga xam ne moom lañ wax lépp condition yi nga xam moom wax ñu saytu ko ñun xool ba xam am na fa wala déet bu fa amul ñu ñu bind euh, euh, saytu ko bind wax leen euh, fexe leen condition yooyu am def leen nag ci délai bu condition yooyu amee tant mieux buñ ko seetaatee bu amul ñu xool nu ñu def yow. gannaaw buñ sant yàlla julli ci yonent bi. sallallahu alayhi wa tey bi ñu xëy ànd ak euh, délégation bi nii ñu wër centre yi fii ci biir euh, Thiès ci biir ci biir académie bi mais vraiment euh, lu ma wax mooy kontaan lool ndax luñ gis da gis vraiment moom. dal na dal na suñ xel. lu boo gisee la mu am loolu nag ça veut dire ci ci gannaaw inspecteur bi ak ñëpp ñu koy jàppale liggéey nañ ci liggéey bu rëy rëy rëy pour que ñu ren amul benn centre bu ñu déggee ne élèves yi dàq nañ ko ngir portable ah, am nay jumaa sax boo fa demee da nga dégg ñuy ci seen xutba yi ñu ngi ñaax parents d'élèves yi pour que kenn ku ne sa kër élève buy génn dem nga mën ko seytu ba du bal portable ba du yóbbaale ñu tere ci centre bi loolu nag euh, ay affaire yoo xam ne dañ ci war a remercier l'inspecteur d'académie bi di ko gën a ñaax donc aussi euh, le chemin à parcourir gudd na lool bëri na obstacle lool mais je crois que ñoom suñu àndee rek nekk benn ñu vraiment luñ bëgg dañu ko am léegi nag xanaa ñu ñaan suñu borom ah mu jàppale suñu candidat yi ba région Thiès bokk ci région yi bëri gën a bëri admis ci Sénégal loolu la lay ñaan. man maay Massar Tali di président de communal communale des parents d'élèves de Thiès et di secrétaire général national de l'UNAPES alors euh, ñu sant yàlla judi ci yonent bi euh, ba nu IA ak euh, gouverneur ak préfet invité ñu joindre ci délégation bi pour visiter les centres alhamdulilah ñu santar yàlla bi ñu demee ci centre yi vraiment lépp baax na lépp organisation bi jaar na yoon aussi ñu sant ci ya euh, mi ko organisé ak euh, autorité administrative yi euh, gisuñu benn élève bu amee portable kenn signalé nu ko gisuñu benn élève bu ndax et cetera et cetera donc ñu sant ci yàlla rek ndax vraiment yëpp jaar na yoon signalé wuñu benn benn rëq-rëq ci organisation bi fu ñu dem président jury dañuy wax tout est bien tout est très bien organisé donc ñu sant ci yàlla di ci sant ñi waral loolu yëpp ba dañuy yaxal ñu sant nag enseignants yi parce que enseignants yi wax dëgg yàlla gàcce ngaa laa ñoom ñoom liñ doon eh, ñaxtu yëpp dañ ko tekki suuf pendant ñaari at ñaxtu nu def nu dara jàngal suñu doom yi nekk ci classe yi ñoom pendant deux ans donc euh, ñu leen ci sant di ci gërëm di sant yàlla donc bu ñu permettre ñu mun a fekkee bës bi et ñu ngi ñaanal suñu suñu doom yi suñu jarbaat yi suñu suñu rakk yi que vraiment yàlla ñu commencé examen bi si bisimilah rahmaani rahim ñu eggale ko si alhamdulilah rabil alamin que vraiment que yàlla may suñu académie donc de très bons résultats parce que travail liggéey boobu def nañ ko donc ñu mën a am vraiment que no suñu doom yi ñëpp ñu mën a jàll. donc loolu la ñu mën a ñaan donc lépp yemb na lépp mu ngi dox convenablement centre yi ñu ngi dox visite nañ centre yi yëpp. correcteurs yi présidents yi surveillants yi secrétaires yi ñëpp ñu ngi sur place ñëpp démarré nañu avant huit heures. ren kenn dégguloon ci ko waral. donc euh, xam nga ñun moom daal grève daal dinañ koy def ñàkk pexe donc lu suñ sañoon grève du am parce que ñun ñun ñoo opté pour jàngale te jàngalekat du n'importe ki jàngalekat c'est la générosité c'est l'engagement te ñun lépp lañ joxe. léegi nag nguur gi nag moo dul moo dul sàmm du euh, am accord yëpp lu ñu def opinion bi yëpp ren kenn dégguñu te yàlla xam na ne lépp lu ñu wante ak ñoom lu bëri defuñu ko te te loolu nag mun mënuñu toog di setaan te opinion bi il faut que nit ñi population bi xamee ko noonu ren def nañ ko daaw def nañ ko te ñu ngi noppi te suñ kii demul euh, xale ñu ngi passé examen ñoom ñu ngi jàll ñu ngi dem xale yi def bac ren ñu ngi def seen bac suñ ko amee dinañ dem université mais ñun jàngalekat ñu ngi sur place doo bouger da ngay def fukki at doo yaa ngi si benn classe. xam nga loolu neexul te loolu nag mënuñ ko seetaan. lu ngeen donc euh, mu bëri loxam mu bëri loxam mu respecter engagement yi parce que nit daal soo euh, soo yilif ay nit il faut que nit ki mu sentir boppam promotion dafa baax si si liggéey te ñun jàngalekat lu ñuy wax mooy suñu dossier yi suñu dossier bu mu tardé suñu dossier nañu suñu dossier avancement suñu dossier reclassement suñu dossier rappel bu mu tardé parce que ñu ngi def suñu liggéey amuñu temps dem di Dakar di xool c'est une question de motivation.